mooy kan na fay say facture moo ci gën a gaaw jëfandi KPR transfert local la ñu ñoo moom di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommer ko ngeen jëf mbokk internet yi ñu leen bu baax a baax di leen ziare borom borom sentir baa ngi nii copain jamaïcain mais jëloo ne namm naa la yaa ngi koy documenté yow de boo ñëwee CNG rek daa mel ni farata tax a non kaay kaay dafa am lu ma dégg da am lu ma for ci weewu bëy damay for rek damay for rek ci weewu bëy waaw li ma for dëgg la li ma for dëgg la dégg naa daal Alboury moom jox nga ko avance mais mais grand combat ko def loolu wala la du grand combat waaye yow de journée ngay tëgg yëpp ay gala la amul mbër mu mag amul mbër mu ndaw ay mbër yu mag lañ Albouri Jacob Baldé. mbër bu ndaw amatul. Albouri Jacob. waaw taxaw na. yàgg na. pour kañ. est-ce que duñ ko dugal ci bii di ñëw. le 28. Ah. yokku la ilaha illallah kon le 28 le 28 ci nduy baax la amul wax bu seet diggante Albouri Jacob Baldé cey Jacob Jacob a ñeme. Jacob moo ñeme lu metti. Jacob ñeme lu metti de kooku mooy makan le promoteur est là borom le 28 avril. ah diggante diggante Coins ak Alioune Seye numéro 2 plus calaf plus calaf ok ba kay ba ma gisee laa xam ne am na lu xew. allo ba ah. ak loo yëgut. li ma yëg kay maa ko yëg. da jàmm. Ah. ndax da xaatim. waaw <laughs> ah, xaaru ba ma xaatim ba pare. la xaatim maa ko xam. waaw may ko may ko mu xaatim. waaw waaw waaw yow feeñ maa fi muskil denc jàmbur rek li loxo arab yi bi ah mais Gaston Production ak Lutte ko bi am nga bi am nga yorum bi ma taal kooku mooy alaaji Cheikh Salim kooku mooy zal ah, boobu zal ba di mën ba bu zapp kii moo formé wala boobu bokk na ci ñuy formé l'an 2000. waaw bokk nañu ci ci ñu Ngeer mais ana Youssou Sall Youssou. Youssou tamu raay ah, tam doon bëre tam doon ànd ñoom maas. Ah. tam demoon na France. booy voyage na. waaw Youssou waaw. booy voyage na. ca ginnaaw raay. maas tubaabu Dior. maas tubaabu Dior. sama waay la woon waaye war warkat la gisatuma ko déggatuma loolu lu mu ngi noonu combat bi nag ñu ngi noonu di mu war a dox ci diggante Albouri ak Jacob Balde nga gis kii nga xamante ni moom mooy Pape Diagne seraas di manager Jacob Balde Zalba di manager ki nga xamante ni moom mooy Albouri nga gis Makan Mbengue aussi nekk noonu ñuy xaatim li nga xamante ne moom mooy contrat bi ñu war a bëre le 28 avril incha allah fii ci arène national mu war a nekkaat événement nekk gala événement la boo xamante ne Gaston production ñoom ñoo ko a amalaat le avril gannaaw bu ñu defee journée bu amaam solo doxoon ci diggante Zarko ak Niang bu Ndaw nekkoon le 4 février waaye le 28 ñu war a ñëwaat Doudou Sané aussi le boobu noonu dina bëre ak Garga wala 28 la aussi caatu yoof war a ñëwaat waaye ma caatu yoof ki mu war a bëre rek laa xam xanaa magan appareil mu wax ma caatu yoof caatu yaraax wala caatu yoof gàmmu géey duel de léebu njaay tiin war a ñëwaat gis nga war a rétifié wu jóge ci defet gàmmu géey aussi ba léegi rek ñoo ngi ci course bi ba léegi rek ñoom ñaar ñëpp ñoo ngi ci course bi diggante Gamou Gueye ak euh, ak Caatu euh, Yoff wala boog ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar fu waaye nekk rek si réew mi ak si bitim réew tey suivre Lutte TV point com tey nag ñoo ngi fii arène nationale jàkkaarloog la PDG Makan Beng ak euh, grand salle ba ak Pape Diagne Seras borom Seras alaaji Makan dama lay nuyu rek bàyyi la nga nuyoo mbokk internet yi bu ko defee ñu jublu si liggéey salaamaaleykum damay nuyu ñëpp nuyu Modou Anta nuyu Lamine di leen ziar bu baax a baax nuyu ñaari manager yi Pape Diagne ak Zal donc soo leen gisee rek mooy xëy na am na lu taxaw loo xamante ni dañ koy dugal ci journée yi rek comme date amatul te mbëri seen yaram tàng na comme ni nga ko doon doxee sànq Euh, yaram mu tàng nag moom xam naa ni moom foog ñu laale incha allah donc ku ñu présenter leen juste Albouri ak Jacob Balde allan ma ne ko allan Albouri ak Jacob Balde incha allah ñu dugal ko ci journée 28 avril mu nekk ci bokk ci combats spéciaux yi ok kon nag surprise am na de Albouri Jacob Balde waaw loolu loolu loolu looloo am ok facilité combat bi bon xam nga ñoom ñaar samay waay lañ yàgguñu ku ci nekk cinq minutes laa waxtaan ak yow matul ñu conclure te ñu ñëw fii signé li ñuy signé ñu jàll ci leneen. mais le 28 avril est-ce que kon budget bi euh, war war naa cher de parce que combat yi ci am yëpp. waaw dañuy bégal amateurs yi dañuy bégal amateurs yi te claf la ñu wax donc suñu nekk claf journée claf dafa war a neex gis ngeen bii jàll dañoo bëgg deuxième journée bi dàq bii jàll objectif bi mooy chaque combat. war a nekk tête d'affiche yëpp combat yëpp mënuñoo nekk tête d'affiche mais am nañ yàkkin ni le 28 avril incha allah combat yi ñu leen di tegal nii amateur yi duñ ci mer. Mm-hmm. tey mën nañoo mën nañoo bokk ci face to face bi am 2STV wala programme wuñu ko ñoom bokkuñu ci programme comme ni ngi soog a signé nii dinañ def benn face to face boo xamante ni spécial lay doon juste pour combat boobu ak xëy na su dee am na yeneen ñu fi taxaw ci diggante bi ñu boole leen ci ñuy defaat beneen face to tey face to bi tey. claf bi la al euh, Alioune Seye Quench Amaneex ak ñaabu ndaw caatu yaraax caatu yoof njaay tin gàmmu gay dudu saane ak garga de dudu saane garga de njaga doole booy jaxaw njaga doole tane na dugal na guérison bi tey donc alhamdulilah te kaaral bi lan moo ko waral boobu ba tey coow yi bari na mais ba tey dégguñu nga wax lan lan mooy problème ak loo si mën a leer non coow amul man man nii laay liggéey xam nga nit ñee coow rek te làmb moo ànd ak coow donc làmb su àndul ak coow làmb neexul benn làmb bu amul coow neexul loolu moom yow xam nga ci dara làmb moom foog muy am coow mm-hmm. ci lay cafka gi di gën a yokk ñun loolu la ñu baaxoo mm-hmm. donc ñu respecté coow googu noonu nga xam ne que day xumbal kase mm-hmm. mais jàmm rek a ci am jàmm rek ci am lan ngay wax euh, sa frère jamaïcain parce que tey daje ngeen fii tey mu mel ni gars yee xamut mais yéen seen diggante xamante ngeen bu baax. Modou Anta man aw ma problème ak kenn ci àdduna man taalibe sëñ Saaliw laa du am problème ak kenn ci àdduna nit lu ma mënti waxal man aw ma problème dama lay baax rek continuer sama yoon. am na solo Pape prince day ñëw. day bokk le 28. am am ngeen accord am wala prince. non day ñëw day ñëw incha allah am nañ accord am. Lamine mu ne 10 dañ koy dañ koy. dañ dañ koy confirmer le 28. ok Saliou euh, kii Pape Diagne maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Moudanta. di la nuyu di la ziar. Mm-hmm. di ziar Gaston production yëpp. di ñaanal juróom mm-hmm. sama xarit yàlla may ko gudd fan yàlla may ko wér. ndax làmb soxla na ko. Sénégal soxla na ko. ndax tey bu làmb ak see fii. ku soxorul di wax dëgg rek te yàlla tax boo dee laloo sa ndeyjoor liggéey na lu baree bari ci làmb bu njëkk boo nee mbërum làmb laa ci kër kenn du kenn du la bëgg a xam mais tey ku sañoon jur mbëri làmb nag parce que nag bu làmb ak see fii joti joué rôle bu mag a mag a mag moog Mohamed Ndao Tyson ba tey mbëri tey lépp lu ñu di am teraanga ci réew mi kenn ëppalewu leen ci kon loolu bu ko waajuram di def moom mu ñëw fekk waajuram ne ci tànk yooyu dañuy ñaan yàlla moom it yàlla na ko yàlla defal jàmm ba lépp loo xam si ni suñu papa Gaston def na ko makan def lu ko waaye def lu toll noonu nag yombul waaye loolu lañ koy ñaanal ndax papaam nit la woon koo xam ni ku gëm boppam ku bëgg événement ku bëgg réussite ku bëgg mbër yëpp am jàmm la. parce que lamb baak see fii joué na ci rôle bu mag a mag kon moom bu ñëwee ne ci tànk yooyu kon moom damay wax ni lépp lu lu mu fekk ci kër gi la ndax maag papaam nag bi ñu ànd boobu moom mi ngi bitim réew di jàng bi may ànd ak waajuram boobu moom mi ngi bitim réew di jàng mi ngi dund maa ngi dund papaam a ngi dund. lu bare bari jaar sama diggante ak papaam bi ma ko seetee rek ndeysaan maa ngi ko koy wax di ñaan yàlla tan boobu nag yàlla gën koo yokk ba mu ñëwaat ci làmb ji ñu gën a gungewaat. xale rimbili rimbili da nga jël borom coow li ku doon coow na nga noppi rek waa ji ñëw na. waaw làmb noonu la booy jël da nga jël koom am coow ndax làmb boo daanee champion nekk champion boo daanu champion doo nekk champion. mais yemul ci coow de confirmer onze combats onze victoires. waaw parce que nag bu ma bëggoon yomb du ma ko jël ndax promoteurs yu bari proposé nañ ma ay combats yu gën a wayef Alboury ma rejeté ko kon bu ma demee ba di ko jël damaa bëgg jël combat boo xam ne lam fi mu toll xale yi ñoo war a bëri seen biir boo daanee champion nekk champion. boo daanu champion doo nekk champion. xale rimbili rimbili bi nga am muy confirmé gis nga ko ni mujj fi bi muy mujj Pikine jara de la fi jàpp sama xarit bi dóor ko ba nangu ciy loxoom jara mu baal ma bi mu fi mujjaat bu bawal la jàpp jàpp fi saal ndengaleer xaw naa jeexal gars waaw xam nga làmb du maas dabante la te mbër. bu jëmee mbër ba jël combat adversaire am dama wax mbër tànk daanoo ko mënoo ko mais combat la boo xam ni combat capital la bu ñu bëree mu neex bu ñu tuusee mu neex bu amateur bu ko dégg xam ni combat boo xam ni dama wax kalaaf bi waaye combat du ko dàq saison bi ren. ñu ne Albouri amul defet nag yow loo ciy wax seetaan nga ko. waaw Albouri daanu na Jacob daanu na lamb noonu la ku bëre yaay daanu. mais Albouri nee na premier combat moom Boy dafa def recours. waaw mais ñoom ñaar boo bëggee dégg dëgg rek ay mbër lañ yoo xam ne Sénégal moo leen di bàyyi xel. ñoom ñaar Sénégal leen di bàyyi xel combat bi zaala ngi nii maa ngi nii ñun menacé même bu ñu ko seddalee di duñ ko sedd ndax seen i gannaaw la ak niñ mel. <laughs> Saliou yéen ñaar mel ne dafa am lu xew seen diggante. non xam nga Pape Diagne làmb booloo ñu ñun ñaar depuis 2004 la. ñu bokk benn grand place nekk ay xale nekk ci làmb kon làmb waru ñoo boole. waaye euh, dafa nekk combat boo xam ne nii combat bu nar a neex la. ndax Jacob dafa nekk euh, mbër boo xamante ni dafa doon mbër gi ci ay ay fànn yu bari nekk ñi daq bëri ci département Pikine moom Jacob. Hmm. yarul lool tamit waaye nañ xam ne xale rimbi rimbi bi ñëw na. borom coow li Lamine ah, euh, mu daan am nu ma la wax léegi. ñaa la Alboury ñetti kase la war am ci làmb. su feccee mu neex dañ ko war a fay te day bëre ba mu sax. su bëree nga war da ko war a fay su waxee da ko war a fay. kon nag su ñëwee di bëre koo xamante ni nee naa la xale bërekat la te Alboury kenn xamul lu mu tële nee la galaa bi amoon na coow waaye coow laa ngi soog a commencé. galaa bi amoon na coow waaye coow laa ngi soog a commencé Pape Diagne nag dañ koy ñaanal yàlla di ñaanal mbërëm jàmm. ba jour jour làmb ja yàlla may ñu ndam lu sedd guy. mais Baye Sall yaa ngi bëre xale bu dansé Sako Balde. gudd jaaxalu ko. rëy jaaxalu ko dijji jaaxalu ko mën a bëre jaaxalu ko parce que lu muy yaru yaru yaru yaru bu duggee ci géew bu fii dalay manque de respect. Euh, dinañ jox cër dinañ jox respect man xam naa loolu Jacob ñi ko yor gënu ñu ko koo xam ndax la mu jàng écrit Fallaye fa koy taree maa ko doon arbitré. la mu jàng. écrit Fallaye fa mu di Mbapat maa ko doon arbitré. arbitré nga ko Mbapat. Mbapat Bessiao. waaw ca jamonoy presse. ma bi muy ñëw BCEAO di mbapat boobu bëriwul arène la mu doon bëri bëreetu ko sax li mu denc am na loo xam ne mi ngi ne la ci moom yeewoogul loolu xam naa ko waaw. kon daal le 28 avril. non <laughs> mënut a yomb <laughs> li ma li ma ci gën a neex mooy. <laughs> combat bi waxaale matu 3 minutes. minutes. xam nga taxi soo ci duggee fay ko 1500. waaw ah. waroo yàgg ci taxi bi avant mooy wàcc taxi bi combat bi pare na. le 28 avril coow li bari na bari na lool sant d'abord sant yàlla euh, Alboury kenn du ko laajte ci làmb d'abord pour wan la Gaston production ci innovation am xale bi ñuy wax Jacob Balde de révélation biir Pikine sët ci Falaye Balde doy na adresse boo nee fils ci Ama Balde doy na adresse wala nga ni Gilles Balde suma papa la doy na adresse ngay bëri xale boo xam ne faalewul kenn gëmul kenn daan na daanaan yëpp maa daan bu ma nee Zal Ndengler maa ko daan doy na coow barki démb tout récemment rek nga gis lim ñu woon daanee Zal Ndangler laa ne du comédie mbër la. nga gis ko moo zone technique. Mm-hmm. du la déglu day xeex boo boo xeexee mu la laale la plaqué sànq. dajeeg nag xale bu gëm boppam ma yàgg koo Pape Diagne ni ko Jacob yaa ko yor waaye mbër gi ci moom xamoo mm-hmm. liggéey nañ combat yu yàgg muy combat bu doy waar di combat amateur. Mm-hmm. di combat bu bu doy waar. war a ñëw ci le 28 mën nga ni la fa nekk doy na. Ah. mais toujours li may wax ci makan rek bëgg jeunesse bi avancé. bëgg a yokk à chaque fois labelu Gaston production parce que dafa loo xam ni boo amee foo ko fekk li la war a mooy yéegal niveau bi à chaque fois ci loolu lay dox et puis ci bi ma ci gën a neex mooy yar bi ak discipline parce que nit ñi mun kenn moomu leen ngay ànd ak nit ñi da nga leen nawloo da nga leen respecté jox leen seen cër kii suma xarit la Pape Diagne zal mi dëkk nañ plus de presque lu ma trente cinq ans su ma xawul nit doo xam mooy ay relation yi yàgg bu ñëwee suma kër suma yaay day jaaj turam ak dajee fii sant yàlla la aussi moog reenu guy mën naa la wax ne daanaka loolu sotti na ci la jëm. benn. loolu lépp ci renfort la ñu ngi bëgg yeneen xale. waaw ñu ngi bëgg Aliou Fat Fat adversaire bëgg nañu aussi xale bu mel ne Karbala ñu ngi ci doon wax sottiwul mais ciblé wuñu kenn. da ngeen dañ bëgg ñoo ñëpp utal leen abo yi. bokk na ci cible yi seen ménageur rek may dégg. donc liñ ci bëgg rek mooy innover def li nga war boo defee li la war nag li ci mbëri la. mais mais mais Abdoulaye dama lay dog. loolu bu amee. Ah. position yi dina doy waar de abo yi Perez kaay nag la 28 amu fa. parce que bu ñu demee ba dugg ci gala nga ñëw di dugg. ci kir yi bu Grand Dakar ñu ngi ci. aussi bëgg nañ ma dugg ci. dañu ciblé nag ñi ci wër seen. mais am na komba ah non yëgu ma ko. Ah, mën na nekk yëguma ko de. te yaakaar naa est-ce que damay xaatim comme yëgaguma loolu moom. <laughs> mën ngaa yëg mais sa yaram tàng na de. Ah, yaay yaakaar naa ko de xam <laughs> nga léegi da nga naan yaakaar naa ko. waaw waaw këyit bu ndaw la ci poste yi ne rek. noonu la demee donc sant yàlla. mais li la. li ñu bëgg la cest à li ñu bëgg rek mooy xale yu bëree amul xëccoo wuñ nag amul xëccoo tolloo Gaston Production du structure buy daw uti mbër mbër moo ci ëpp avantage pour gis ci boppam kaay la ñuy liggéey nag nga mën a woote mais pas ne fi daw ni nangam te jaru ko du jeex géej la bu ñu doon tëgg tous les jours du lundi au dimanche du tere làmb ji du tax mbër yi jeex kon nag lay fa war a dajal le 28 avril fii ci arène nationale bu ñu waree ba naan ndox ci kàttanu yàlla war ak jàmm ah? waa ci kanam ku ne xam ne lii daje tey xam nga boo ne tey ji Alioune Seye numéro 2 Quench doy na face à face ñaabu ndaw ama neex doy na claf bi doy na te ñi ngi négocier pour jël ki nga xamante ni Jacob Balde ak Albouri doole leen ci waaw waaw day wane ni pare na xam nga lii mooy ku gàddu sec doo joxe génneel sa poste kii laaj naa ko léegi kii dama ko laaj làmbal ana ba sax bare ngeen yàgg na Sénégal ka fay kan ngi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw KPA transfert local la ñun ñoo moom di ci soññu Sénégal yëpp ñu consomé ko